ko nga jël sengoor ga mbay loo wax nga ne mbay indi na forme waaw mbay indi na forme non liggéey waaw mbay guy gi yaakaar me tey li ci yegg moom combat bi fu ne ñoom risque la waaw waaw te Max ngi noonu ci biir def te Max nee na ndeysaan armée jël na biton wu 10 litres mais biton wu 10 litres seen see terew ko woon ci làmb ji wala ko mujj bàyyiwaat armée ngay xëppoo biton wu 10 mbay guy gi tàllal na ko sengoor gu ñu owee morso bu xonq bu am pitaaw ci digg bi moo ngi koy fas si ndigg li mbay guy gi tey làmb xarit yeeg am di jàmm yi ñëpp mbay guy gi ak armée ñi ngi def seen préparation de mystique Mbaye Gouy Gui ak Dakar mais Mbaye jël na kànnaar ma ngay lim allo. lamb dafa day waar mais baa mag ñi nee nañ mbër buy wooy buy wow nañ ko nañ war nañ ko xoolaat maanaam parce que di sang di wow loolu xamee ne tegu sax si yoon moo tax mbër buy wor war nañ ko war a xoolaat. ndeysaan armée ak mbay guy gi ñoom ñaar dañoo dañoo tolloo boo xoolee combat bi xam nga ne ñoom ñaar neexoon nañu. xeer nga mu gaaw daam ci ñaari xale yi. làmb ji lu ne mun na si am mun na gaaw mun na yéex xam naa ne armée mbay guy gi si défaite la jógee contre ko moo tax combat bi dafa war a ñëw jël temps kos cause combat bi. te ñoom ñaar dañoo tolloo doole makat na. dañoo tolloo doole. waaw moo tax lamb ju neex ngay gis. mbay guy gi yaakaar me mbay takkaay yi bari na de. takkaay yi bari na. waaye xajam na de xajam na torop tey daa saf bër. mbay guy gi dafa saf bër. gars yi yàkkamti woon nañu takku saanam ndax Sarko daf ko daan Ibamar. Sarko bëri na ñaari yoon ci kawam. waaw boobu ba léegi bëriwul. boobu ba léegi bëriwul. moo tax tey dañoo war a xool dañoo war a xool nu mu ñëwee. ndax combat bi daa yàgg daam def na deux ans. waaw def na deux ans. mbay guy na deux ans. def na deux ans. moo tax làmb ji ku yem rek nga tey si ñoom ñaar yëpp dañoo liggéey boo xoolee combat bi xam nañ ñii dañ ko liggéey moo tax combat bi nekkul combat bu ñu asaaloo foog ñu bëree dañuy bëree. cey làmb daam. dafa doy waar. cey làmb daam. làmb dafa doy waar makat. cey la mu làmboo. li mu làmboo rek moom rek moo waxam. gars yi ba pare mbay guy gi li ñu jaaxal deux heures la dugg ci bi arène national dafa teel a ñëw. day dibi laañee. ah. dibi laañee. ah mbay guy gi daa moo gën a pare de. Dieye seen mais kee ngay seen moom mooy jéy Sène promoteur. Uh-huh. Abdou seen frère am frère u Dieye Sène tamit nekk ci cumukaayu mbay guy gi. dëgg la mbay guy gi bawol bawol la. bawol bawol la. bawol bawol la waaye attention ci armée nag parce que nag ñoom ñaar dañoo neexoo. neexoo nañu dooloo yi tolloo dañoo tolloo doole te boo xoolee ñoo tolloo taxawaay. ñoo tolloo taxawaay. moo tax combat bi cinquante cinquante la. ku juum daanu ku juum daanu. daam wu réew dem na këng daam. waxi mag dem dañ tàlli. bàgg war mbaam. moo tax lu waay doon jaay tey mu lambu. ñu ne wàllub teen la. ku ñëw ci pënd bi ngay yem. kenn nooyeetul ñu ànd ak mbay guy gi. maa la wax loolu ñu ànd ak armée it kenn nooyeetul. ndeysaan baa ngi waaj a soufflé. waaw moom saa bi ñoo ngi ci cappaandaw la. xarit yeeg am di jàmm yi. kenn kenn kenn ñëpp a ngi ci ginnaaw saa yi. ñëpp a ngi ci ginnaaw saako yi. cey lamb. lamb doy waar. armée am na koy defal lu ko entraîneur am di defal. lamb li mu lamboo. ngi koy diw. suuf si ñi ñuy diw armée suuf si ci bàmmeel lay sax bàmmeel bu bees wala fu nguur yi nekk xam nga nguur yi. mburi nguri mburi yan ñi yan ñi yan ñi yoroo bool yéen a gën a xam. nguri mooy kii def neeku ban yi. aha mooy lu mel ni melentaan. waaw dey jël ban daal di koy aj ci kaw ci duus la ëpp lu muy nekk. waa loolu Mamadou Saliou loo wax. loolu ñi yoroo ci àll ba ñoo ko xam. ñoo ñu yaroo ci àll bi xam nañ ko. waaye ñi yaroo Dakar. yaroo Saalum. ñi yaroo Dakar xamuñu loolu. ñi yaroo Bawal. ñoo xam loolu. loolu ban boobu noonu ngay jël suuf soosu mu tabaxe ne moom ngay dindi. daal di koy dëpp bu at bi desul loolu waa suufle nga diwoo ko. nga diwoo ko mais xanaa loolu daa lu muy àndal Makan. daa am lu muy àndal. Makan da nga xam laamu nag. waaw ku yàgg di jaw di jaw. waaw ku yàgg jaw moom di jaw lu leer nga wax. olof nee na ku yàgg ci teen bak fekk la fa. ndeysaan diggante mbay guy gi yaakaar ne. fu mu toll nii ñoo ngi ci dernier réglage yi. diggante Ikiri Bada Jonn. at armee benn baraag la dëkk. benn baraag mbooloo la ne. arbitre baa ngi leen di wax li làmb bañ at li làmb nangu. mbay guy gi moom la ñu jàkkaarlool armée moom moo ñu woon ginnaaw. diggante armée at mbay guy gi doon ñaari xale. mu takk téere bopp bi mbay guy gi takk téere bopp tamit. mais ñoom ñaar dafa mel ne dañoo xaw nduroo ay tegtal. mais mbay guy gi bu weex la takk armée takk bu rouge. armée bu xonk la takk. te xay sangoor yu bari ci ngemb li. daam arbitre baa ngi waaj a soufflé. diggante Mbaye Gouye Gui ak Armé mi ngi leen di xool ba xam diwu ñoom diwuñu waaw mu ngi leen di xool fu mu toll di leen wax li làmb bañ ak li làmb nangu maa ngi nuyu sama waa ji Serigne Samba Ndour waaw Serigne Samba Ndour borom Touba borom léppay baax mooy neex a fekk Touba nga xam ne da lay ñaanal ba pare di la ñaagal di la maa la wax loolu Serigne Samba Ndour ah Serigne Diop ak Sofia waaw ñu ngi koy nuyu di nuyu Baye Sëñ Fallou ak Ahmed Baye Ahmed ah ak Sëñ Fallou ah borom léppay baax. wa borom léppay baax Serigne Samba Ndour. borom dara lu kër kàpp. lu ler lu leer nga wax Serigne Samba Ndour. moo lay ñaagal di la di la ñaanal. koo koy Serigne Samba Ndour sama waa ji. mooy borom Touba Kër Baylaat. borom Kaaw Kër Baylaat. Kër Baylaat la dëkk ñaari pënë. ñaari pënë. kooku mooy Samba Ndour. ndeysaan mbay guy gi. at armée. arbitre bi leen di wax li làmb bañ ak li làmb nangu daam. diggante Mbaye Gouye Gui ak Armé arbitre dàq na leen mooy waaj a sifflé. daam coow léeg werante yi place beeg grand place. lépp fii lay leeree. fii lay leeree si kanam tuuti fii lay leeree fii ci fekkee. arbitre bi sifflé na. arbitre sifflé na diggante Mbaye Gouye Gui ak Armé. Mbaye Gouye Gui ak Armé ñoo ngi lay too doxoo latéral. Mbaye Gouye Gui ak Armé. Mbaye Gouye Gui ak Armé ba léegi dóor amul songo amul. Mbaye Gouy Gui ak Armé Mbaye Gouy Gui jël tànk bàyyiwaat na ko. combat bi daan ko mel ni combat bu nar a gaaw Maguette. daan nar a gaaw. dañuy bëri ñaari xale yi. Mbaye Gouy Gui ak Armé. Armé benn baraak am Mbaye Gouy Gui bu bawol Mbaye Gouy Gui fu mu toll moo jàpp Armé jàppul fenn Maguette. Mbaye Gouy Gui jàpp na. moo jàpp boppam féetoo. Mbaye ngay fàq. moo ngay fàq Mbaye ngay fàq. daa mel ni ko bëgg a remplacer caxabal. la man Mbaye ngay fàq. mais Mbaye jàpp na ko ca ba xal na ko waaye li may bañ ba xale yi dañuy bëree. armé ak mbay guy gi. armé ak mbay guy gi. waaye bëri nañ lu neex léegi ma mbay mbay mbay tante na ñaari yoon dàq. mbay guy gi ak armé. mbay guy gi ak armé. jàppante nañ mais combat dafa mel ni narul am narul am premier round lañ la jeexee. non deuxième round lay jeexee. mbay guy gi ak armé. mbay guy gi ak armé. mbay mbay ma ngi koy forcer cabaxal bi mais armé. dafa bàyyi mbay combat bi fu mu toll ko bàyyee combat bi mbay jàpp na mbay fu mu toll na def attention tamit parce que armée mbërëntaan la. mbay ngay ronu mbay daa bëgg a xanaa. mbay ah mbay dugal na bopp bi mbay fa mu jàpp baax na daam. da koy bëtt wala ca ginnaaw ngembu la mbay day yenu wala. attention mbay guy mbay bul forcer loolu mbay ah mbay bul forcer loolu. damay ragal mu forcer armée tuur ko. loolu laay bañ. loolu mën na see ne. mbay bul forcer. mbay guy gi at armée. da lay gaañ Seydina dégg nga ko c'est la expert de la lutte. Seydina moo wax loolu lambaloog la. mën na ko tuur. mën na la c'est la expert de la lutte. waaw sa parle wolof kon. mais li ma làkk noonu la wala du noonu. noonu la noonu ah, ma du noonu. waaw moo gën a wóor. ah moo gën a wóor ma nampali ba xam. waaw nampali nga xam moo gën a wóor ma kat mais fu mu toll ku nekk moo ngi déglu moromam. tey mbaru Samba Ndour bi jàpp na mooy mbay guy gi. mbay guy gi am na ñaari ngemb. ñaari ngemb la jàpp mais armée tamit ñaari ngemb la jàpp attention. waaw. te ñoom ñaar ñëpp ay mbërëntaan lañ doyoo mën a. mbay day songale wala. mbay da koy songale wala ko bëgg a taf ca baxal. mbay guy gi at armée attention moo koy songale. armée ngay songale. ñoo ngi jaayante doole fu mu toll nii ma kan ku nekk jàpp nga ñaari ngemb. Mbaye Gouye Gui armé. Mbaye Gouye Gui ak armé. mais gars yi xeexuñu ma lu tax loolu dañoo abdoulaye na pure ñuy jàppante di mbabat mais lu tax xeexuñu. combat bi bëre lay jeexee. non dañuy wane ne ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañu. waaw diggante Mbaye Gouye Gui ak mbay Mbaye Gouye Gui ak armé Mbaye Gouye Gui armé du cuune defal ndànk. bul forcer dara. attention Mbaye Gouye Gui armé. mbay moo ngi dóor ci suuf mooy dóor ci suuf. Armé ak Mbaye Gouy Gui. Mbaye Gouy ak Armé attention Armé tap na wala. Armé jàpp na nga am lii dafa mel ne ko Mbaye Gouy Gui moo ko bëgg a plaqué. Mbaye Gouy ak Armé. Armé saxal na ko tànk bi. Mbaye bënn na ko. attention. du bàyyi Mbaye pàkk la. Oh. du bàyyi mbay. waa xale dañuy bëre waayi. waa dañuy mbay daan na ko ci ginnaaw saako yi mais arbitre bi woote mbay du bàyyi waaw. mbay guy gi at armé. arbitre dañuy waay arbitre arbitre maa. xaaral ma jël réaction ci mikaay. waaw ok. mbay guy gi at maa ngi nuy waa Yarax. Yarax montagne 6. maa leen di bëggee fii si Fekke TV diggante mbay guy gi at armé. arbitre moo ngi daa mel ci combat bi. mais arbitre daa mel ni dama sonn demoon na ci. sonn na ba arbitre baa ngi koy woo. di dem. wala day fomp. waaw mais daa war a fomp. mais arbitre mayu ko arbitre mayu ko temps arbitre nee na ko ñëwal mbay guy gi at armée ku xool armée ci armée a noppalu daam xam ne armée dafa liggéey armée liggéey na parce que mbay guy gi jël na ko dak ko demoon moom ba génn saako yi mënu koo tëral. te guy gi daa mane loolu. dafa mën loolu daa am kaw mbay guy gi armé mais armé ngi wàññi wàññi sengoor yi mais sengoor yu bëri ci la ñuy jàppandu armé at guy gi ku nekk yaay ngi say cumukaay yi yaa ngi sa kot saa bi sëriñ bi am na lay armée jëli na sangoor yëpp mais saa bi dafa mel dafa dëgër boppam dafa dafa mel dafa bëgg a taxaw dëgër nag dindi na sangoor yëpp mbay guy gi at armée baa ngi leen woote waat arbitre nangu mu leen may temps waaw magat maa ngi nuy waa Yaraax. waa Yaraax montagne. waa Yaraax montagne si maa leen fii si Fekke TV Armé ak Mbaye Gouy Gui ba léegi ñoo ngi ci premier round bi arbitre baa ngi woowaat si digg géew gi Armé ak Mbaye Gouy Gui waa supérieur Armé yëpp jug nañ taxaw Armé ak Mbaye Gouy Gui combat bi attention ci combat bi Armé at Mbaye Gouy na leen jox nañu Armé benn avertissement sortie de la Libéré na diggante Mbaye Gouy Gui Armé te maa ngi taxaw Iba noo gisee noo gisee combat rek parce que Armel liggéey na di ngay xeex xeexu mbedd ñoom ñaar Armel liggéey na mbay googi jël na ko mu ngi koy jéem a plaqué mu ngi koy jéem a plaqué arbitre attention ah mbay googi dànn ko mbay googi dànn Armel jël bi amul benn warante ba pare dóor ko loolu c'est pas normal. c'est pas normal c'est pas normal. violence dafa war a. Armel nag na wax dëgg yàlla liggéey na jom ak condition physique. mooy gagné combat bi finalement ndam li Medina la mujjee dem ndeysaan. mais jaaru na mbay guy gi tamit dafa liggéey mënul woon ñàkk armée guy gi ba léegi ñoo ngi xeex attention bi violence bi ci làmb waaye arrêté arrêté arrêté la violence arrêté la violence guy gi at armée waa jëlama lii ko dox jëlama lii waay waaye ñaaw ci làmb mais lii dafa ñaaw ci image. waaw dafa def erreur warul dóor daan na warul dóor. warul dóor mais lii dafa ñaaw ci dafa ñaaw dafa ñaaw wax dëgg yàlla dafa ñaaw. violence bi ndeysaan Arma nag liggéey na. mais Arma dafa liggéey. jeexal combat bi ci 5 minutes mu xañ ko loolu yëpp. looloo mën na liggéey rek am solo. ndeysaan dëgg la dëgg la mais warul woon dóor. bilaay walaay warul woon dóor. mbéy guy gi daan na ko jël bi amul benn werante. ndeysaan dóor bi rek mooy problème bi. waaw daa waroon fair play. ndeysaan loolu mooy yoon loolu moo nekkoon yoon. dëgg la mais nag ñu ngi jës sa bés bu mag suba. waaw diggante Franc day sànn. diggante ak Forza ak Forza. waaw après Serigne Ndiaye 2. waaw Serigne Ndiaye ndax am na seen senior ñaari mbëri mbapat. day sànn lamb jooju suba. dina mel ni ba Ngoy Ndiaye mbàmm na nopp yor dem. parce que Franc am na 11 victoire. ba léegi amul defet waaw ba léegi amagul defet day sànn. te Forza mu tax koo xam ne nii ba mu ko laajee keroog dafa ne moom. combat bi moom daf ko fonk mi ngi mel ni moom mi ngi soog a bëre. ndeysaan mi forsa moo tax combat bi li may wax rek cinquante cinquante la. cinquante cinquante. moo tax combat bi ku yebu nañ si tey diggante forsa at franc ñoom ñaar dañoo tolloo doole donte nag franc moo gën a nekk xale waaye na def attention si forsa parce que forsa ndaanaan la moom tamit. non forsa mooy ëpp avantage. parce que bu dee wàllu xeex mën na ko. booy bi tamit mën na ko te am na doole. dafa am expérience. voilà te am na expérience moo jiitu booy bi ci làmb. jiitu booy daan booy bi daanu leen. daanu avantage bi yëpp mën nañ ne Forza mooy favori. mooy mooy favori moom mooy favori. mais mu ne def ndànk nag. ci koo xam ne am na 11. 11 victoire 11 victoire. ba pare ba pare doon xale di compétir ci mbapat la dëgg